kat. non Sadio Sadio non nouvelle tête moo tax nouvelle tête yi quoi ñi nga xamante ne peut-être kenn yaakaaroon woon ngay football. nouvelle tête y' a pas nouvelle tête kan la peut aujourd'hui bu nouvelle tête c'est un euh, nouvelle tête bu ñuy wax peut-être Jackson peut-être peut-être. moo tax ma ne la moo tax ma ne la. Mhm. boo xoolee ñuy joué contre Bénin ñëwaat contre kii nga xam ne am na joueurs yi nga xam ne effectivement que ni Aliou am na yaakaar ci ñoom. am yaakaar ci yow rek ça veut pas dire que ne forcément di nga fi nekk ëllëg parce que on ne sait jamais. Mm-hmm. on sait jamais et puis une équipe noonu lay doxee sax cest à xam nga tu sais dafay baax également aussi entraîneur mu am task force am parce que ça c'est important. Mm-hmm. Mm-hmm. c'est important nga am sa task force dafa que ñoom ñoo mën a xëccaale ñeneen ñi quoi parce que sinon ba amul task euh, dafay dafay dafay dafay dafay jafe. et je pense qu'aujourd'hui il tient son task force. xam nga il tient son task force c'est-à-dire que ça tourne autour comme ñi ngeen di wax nii ah ñi ngeen di wax nii Kalidou Koulibaly Sadio Mané Gana Gueye tu vois c'est ces jeunes-là Nampalys alors ça tourne autour de ça alors et que jàpp encore jusqu'à présent mais ils sont alors